juróom-ñaari fan nekk diggante mawlud bi ak ubbite école yi mu nekk ñaari événement yi laaj frais bu bari ci loolu ñu doxantu ba ci marché Petersen ngir xam nan la ko askan bi di dundee ouverture yi waaw par rapport ak nin daa waajale nag ndax ay jamono dañ amoon marché bi nga xamante ni bii képp ku jóg da sawar ngir ñëw Petersen mais pour l'instant moom gis nga ni mu tëddee marché bi lépp tas ñuy dund ay jafe-jafe yu métti dem ci gaal yi ngay dégg yëpp boo xoolee genn wàll gi dem yàlla xam na ci marché bi leen déparé dem yàq nañ seen liggéey amatuñ fu ñu liggéey ñun fii ñu nekk garage la mais par rapport heure bi boo daa ñëw ouverture Petersen benn jaaykat du talu ak wax ak yow ñu ngi ci ñu ngi ci baar bi mais pour l'instant moom lépp yàqu ñu ngi dund nag ay jafe-jafe yu méttee méttee métti képp kuy képp kuy képp képp ku la kuy borom kër yaa ngi dund tey ay jafe yu méttee métti lépp sa dépasse ngay jël béggalee ko say doom yow nga xool nooy noo nooy noo def baax na ndax xale moom xamul muñ moom li mu dëgg ma li mu bëgg ak bu demee classe li muy gis moroomam di ko def moom loolu na ko am rek mais par rapport ak mag mi nga xamante ni moom xam ne situation am ni muy dewaay mais li nga am moom dangay ngay sacrifier sa bopp jox ko xale yi yow nga toog waaw yow donte doo lekk doo naan li nga am da ko jox xale yi yow nga nekk ci leneen mais xale yi moom moom xamul loolu ay dëkk bu dëgër wala yii ñoom xale yi xamul loolu xale yi moom seen bëgg-bëgg rek lañ xam foog nga obligé defal leen ko. mu nekk ay charge yu bëri yi métti lool ci ñoom jaaykat yi fa faree. waaw loolu métti na trop métti na trop ndax boo xoolee njaay mi léegi daanaka as tuuti nga ciy am rek comprendre nga. te déjà Sénégal bari na événement événement yoo xamante ni daanaka boo amul yeneen fonds yi rek da ngay son quoi xam la fonds yooyu boo ko yorul da son mais nag nañ sant yàlla bu baax déjà daal ñoo ngi koy menceer bu baax a baax te aussi euh, ñuy ñaan suñu borom rek liggéey bi gaaw pare ñu dindi suñu barrage zeng yi gars yi mën a teg seen tabal yi dax seen warsek ngir luñ suturaloo ak seen njaboot. Samba Ndiaye di kenn ci ñoom di ñu xamal ni rek seen liggéey demewut noonu. non dellu ginnaaw bu baax a baax lañ am ñun surtout bu dee suñ marché bi dellu ginnaaw bu baax la déggoo li ma la wax dama ne la heure bi bu daa jot commerçant boo bëgg euh, interview comme nii doo ko am doo am sa temps sax mais pour l'instant ñun amul marché marché mi ngi nii si ginnaaw ay santal d'années ñu ngi ñu fi jëlee defar ba mu baax tëj ko amul benn rendement ñu ngi ko tëj ubbi wuñ ko bàyyi wuñ ko di ko defee affaire politique mu métti lool nag. selon eux les travaux du BRT en sont la raison. sant yàlla rek xam nga as góor moom as rek lay doon maanaam yàlla suñu borom mooy war sekal xam nga événement yi passé vraiment eh baaxoon na trop mais itam daanaka ren gi xaw naa sooxe quoi xaw naa sooxe vraiment. mais li ñuy ñaan daal nañ gaaw dini seen zeng yi barrage zeng yi berte bi xam nga gars yi mën a toog ñëw liggéey. ndax gars yi ay borom jom lañ ay liggéeykat lañ aussi encore une fois da ngay sa valeur un million wala sa valeur deux millions ñëw jël ko ay bagage yëpp teg sa taabal yaa ngi dégg di xëy di daal sa doole bu ngoon jotee boo jaayee cinquante mille wala soixante quinze wala trente mille da ngay ñëw jël lépp basé waat loolu gëm yalla moo koy def base ngay jënd wut ay buum takk ba mu dëgër nga dem ñibbi sa kër fay gardien ay 200 300 chaque jour comprendre nga loolu bëgg a liggéey rek moo ko waral kon nañu dimbale quoi ñun amuñu feneen fu dul fii comprendre nga waaw nañu ñu jàppale ci loolu bu baax bi ñu demee foofee ca marché bu Petersen ñu fekk fa ay borom kër di daan seen doole bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu travaux BRT yi ñoo sooxel bu baax seeni activité mu gàllankoor seen waajal ñaari événement yi ñu digmal.